Je vous di nuyu ku ci nekk ak santam je vous di en tant que coordinateur du collège des délégués de la RTS maa ngi agent RTS yëpp ñu mobiliser demain inshallah, mardi demain mardi inshallah, mobilisation exceptionnelle pour faire face aux mesures arbitraires que le directeur général Pape Alé Niang mi koy jël ci RTS un contracteurs yi. yéen ñi nga xam ne yéenay décisionnaires yi yéen ñi nga xam ne yéenay prestataires yi bu kenn des ne ñëpp génn si on va lui barrer la route incha allah ce mardi 2 juillet ndax mënuñu toog di continuer mu ne day wàññi salaire yi déjà wax na direction bi nga xam ne mooy ressources humaines mu changé li nga xam ne mooy bulletin de salaire yi ñu toog 100000 francs yi nga xam ne mooy avance tabaski mu dagg ko. mënuñu toog muy coupé ay ligne téléphonique mënuñu toog mu jël ay contracteur bi def deux ans waroon leen recruter ñëpp mu dàq ay techniciens ay caméraman ay journaliste ay ay ay agent administratif